benn ci liggéeyub waa commission sociale bi aju ci kuréel Junatun tàmbali leen ko loolu nag di lu am solo muy séddale ndimbal yi nga xam ne nii yenn ci mbokki jullit yi jot nañ koo indi fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ngir jàppale askan wi nga xam ne nii dañoo lorole ci mbënd mi. gannaaw boo bi ñu demee ci terrain bi ba recensé enregistré xool ñi nga xamante ni ay sinistre lañ. soxla nañ ku leen jàppale tey nag ñu am pàcc bu ñu bëgg a tàmbali ci jàppale googu muy lu jëm ci wàllu dund bi ak ci wàllu taxawaay bi loolu moo tax euh, commission bi tey ñëw fii ubbi benn bureau ak benn magasin boo xam ne fii la ñuy ñëw indi reçu yi nga xamante ni moom leen commission de recensement bi jox bu ñu ñëwee fii ñu jox leen ay bons d'enlèvement yi ñu dem yóbbu ci magasin bi ñu jox leen li li ñu leen di dimbalee loolu daal tey mooy euh, taxawaayu commission bi ci journée wu 25 septembre 2024 bi. gannaaw organisation bu am solo bi fii nag beneen pàcc bu bànqaasoo ci commission sociale ñoom itam ña ngi fay amal liggéey bu am solo. ci ni ngeen ko xamee rek liggéey bi ni mu déroulé ba mu tàmbalee ba léegi mooy rek commission sociale tàmbali dem def recensement jox nit ñi ay bon tegtal leen magasin bi nga xam ne moom lañ leen koy joxe ñu teg fa ab commission boo xam ne nag soo dikkee da ngay tàllal sa bon ñu enregistré sa tur pour cas de sécurité rek ak it gën a ñoŋal liggéey bi ci ni nu ko sëñ bi sante ndax liggéey bi Sëñ Tuubaa toll nii rëyeen nii murit yëpp wuy si ci daanaka li nga fi gis ci ay matériel yëpp nit ñee ko joxe war nañ koo nos nosin woo xam ne vraiment dana am solo boo ñëwee da ngay gis sëñ maxtarkan ma nga ne gis nga ko mu yore ay muy mooy recevoir bon yi am na sunu élément boo xam ne seen élément boobu ci ispitar xëye la bokk ma nga ne moom it moom lañ jox l'argent bi moo koy xaalis bi bu ko defee nga ñëw ci buntu magasin bi yaa ngi fi fekk barafal moom it nga jox ko bon bi mu jox la ñaari saako yu ceeb yu ndaw ak ñaari bidon diwlin yu 10 loolu daal lan nu sant ci wàllu liggéey bi nga xam ne dama bokk ci commission sociale représenté leen fi. commission sociale wëy di leeralaat ak soññaat mbokki taalibe yi waaye di yëkkati ay cant jëmale ko mbooleem jullit yi nga xam ne nii bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides tàmbalee liggéey bi tàyyiw ñu benn yoon di ko fekk ci bëgg-bëggam boobu ngir nag jàppale askan wi nga xam ne nii loru nan ci mbënd mi ci dëkk bu tedd bi di Touba. cant yi moom xam naa ne la ci li ci aju sax Cheikh Mamadou Mountakha moo ko mënal boppam te dina ko def te damay wax ne képp koo xam ne sa jëf nanguwut du agsi fii fii moom jëf ju nanguwut du fi agsi sa xel sax du sa xel sax du ko daj ba nga di ko def. sëriñ bi lii dugg ci moom moo koy tànnal boppam kon euh, gannaaw bi ñu ñaanalee Cheikh Mamadou Mountakha ci yéen ju rafet ak taxawaay bu rafet bi mu am ci yoon wi euh, euh, ñaan mu yàgg fi te wér waaye tam ñi ngi ñaanal di sant ñi nga xamante ne dañoo topp ci yoon woowu maanaam woote sëriñ bi dañ ko wuy si wuy si woo am doole nag bàyyiwuñu kenn ñi ci biir dëkk bi ñi ci biir réew mi ñi ci bitim réew kenn desul ngir taxawa li si Cheikh Mamadou Mountakha bëgg loola am loola rek moo leen tax a jóg te bëgg-bëggub Cheikh Mamadou Mountakha mooy bëgg-bëggub sëriñ bi mooy bëgg-bëggu sëriñ Touba mooy yéene ñëpp yërmande kon nag loolu dañ ci yóbbaale it kàddu soññe ñi nga xam ne dugalaguñ ci seen loxo wala ñoom itam xëy na yëf yi euh, ak gu ci ñoom ñoom itam ñu jéem a fexe itam mm, dugal ci seen loxo ngir yëf yi mën a daj ndax bu sëñ bi bu sañoon képp ku loru rek moo lay taxawul boppam. wa jannatan li saalikin muridi wa